alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain mbokk yi ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko delloo njukkal ci mboolem lu mu nu defal ci ay xéewal moo xam lu nu yëg la moo xam lu nu yëgut moo xam lu nu xam la moo xam lu nu xamut ñu ngi julli di sëlmal ci sunu yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dëkkee dot ci waanum xéewal ci kaw yonente bu ak ay saxaaba ridwanullahi alayhim ajmain nu ngi toroxlu sunu ko ñaan mu defal ñu tawfiq fi dunia wal axira xutbay tey ji bi ngi jëm bu am solo ci tomb yi nga xam ne doomu aadama dana ko jëndangee bakkanam su fekkee nar nay maam borom ko doole rawatina ci waxtu wi nu toll wala jamono ji ñu toll nga xam ne mooy asrul maadiyaat jamono joo xam ni mi yi fab bi doomu aadama wala mbir yi fab bi ak xolam ba bàyyi xel ji muy war a bàyyi xel borom dëgg-dëgg du ko def dafa bari jamono joo xam ne technologie dafa avancé lool daanaka doomu aadama waar ko ci ay matériels yi àddina moo gën a yomb waar ko ci fàttali ko alquran ak sunna loolu su amee nag la ñuy jural bakkar bi mooy day waral dootul ko mën a dëppati dafay mànd dafay rëcc déet ko mën a jëndal ba delloo ko ci borom subhanahu wa taala loolu jeexital li def ci xol mooy dafay def ba nit bu jàng ci alquran dootul yëngati te loolu jaarul muy def aji gëm yàlla dafay dem ba saa buñ ko fàttalee yàlla wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu def ci moom benn taxsiir dafay dem ba bakkanam bi bëgg àddina da cee fees dell te su boobaa dootu bàyyee xel ni jaam la mu fi jaar te ëllëg dafay wuy ji boromam subhanahu wa taala bokk na ci xeeti seen yu dëgër yi xeeti jatam yu yu yu tal yi yi nga xam ne doomu aadama mën na cee jatege bakkanam yeewu ko ba mu bañ a màmm ba topp poñetti àddina yi nga xam ne dafay jeex ndax sunu borom dana inna jaalna ma al ardi laha lii ne ci àddina lépp ci ay matériel yàlla dafay def ngir ko rek beneen aaya wa inna la jaayuna ma alayha saidan juusa am solo comme pënd buy dem rek woo xam ne mi ngi bàyyi xel borom gëm ni am jaam mu fi jaar bis dana ñëw mu jóge di bàyyi bis ba mu fiy jógee loolu dana bokk ci liy ba kanam ba yu bari bari bari ci ay fois loolu yu bëggul mu dugg fa du fa kon tomb mooy maada aadatta li haadihi alxujuraat yow jaamab yàlla bi ndax bokk na ci sa di préparer ak a waajal wala boog lan nga waajal ci dëkkuwaay yu xat yee nga xam ne ñun jëpp fa lan jëm kenn ku ne ci ñun day wéer na ko ni dana faatu ko suul te ko suulee suñu borom dana ko laaj waaye nag ndax loolu bi mu la jël nga am ak lépp ci waxtu ak toog di ca xalaat man diw doomu diw ak diw tey maay ci faat ñu jàppoo ma yóbbu ma ci morgo bi ma fa ak ndiir ma sang ba sang ba yóbbu ma ca àll waxtu ba mu xóot sóoli ma yenn ma suuf ñibbi day bàyyi xel ni loolu ñu def tey la ko defal ba fi wallahi ñëpp doomu aadama boo xam ne yàlla baaxee na ko tuuti ci ngëm ak nar koy dimbali moom suñu borom mu boole ci programme dundam di fàttaliku lii di ko xalaat tey day man maa paas man lan yenu nii sàngee ma lu weex lii teg ma ci kaw jaag bii yóbbu ma ca àll bële suul ma ca suuf soosa ngay xalaat nag léegi est ce que yow tey su fekkoon ci lii ngay xalaat moo la dikkal est ce que jekk nga pour ndax tey ñi nga nekk bu rek suñu borom faatoon est ce que am nga yaakaar ci dajeeg yërmande sa borom est ce que li nga ne sax bëgg nga tey dee yooyu ay laaj la yoo xam ne kenn ku nekk bokk na ci jatang yi ñuy jatange bakkan mooy mu di ko xalaat ndax yaa ngi xalaat benn bis jëm ca lu mel noonee ndax yem nga ci bañ a xalaat rek waaye nga xóotal xalaat sax mboolem li nga mës a dégg ñu ne la dana fa xew ngay xalaat bi mi ngi nii tey temb di xew ci sa kaw ndax yaa ngi xalaat bis boo xam ne bu yëgsee wóor na la ni amut looy sikk saaka loolu moom aajowut xam-xam bu yàlla amut looy sikk saaka ci yaa ngay dem léegi boo demee fan nga jëm fa nga jëm loo koy wuti boo fa demee loo koy fekk yii laaj yi yoo xam ne kenn waru koo tontu kenn waaye ne moo ko war a tontul boppam ndax yaa ngi fàttaliku bis boo xam ne bëccëg boogee ci ron suuf ngay yenn guddi googee ci ron suuf ngay fanaan ndax yaa ngi xalaat ci lëndamaay ba nga fay fekk ndax yaa ngi xalaat ci weetaay ba nga fay fekk ndax yaa ngi xalaat ci tiis ba nga fay fekk ndax yaa ngi xalaat ci xataay ba nga fay fekk ndax yaa ngi xalaat ci xóotaay fa nga nar a dugg ndax yaa ngi xalaat ci wéetal ya fa ne muy tax ya ak ya nga xam ne ñooy dund ci biir suuf nga xam ne ñooy lekk sa yaramu soo faatoo ndax xam nga ni manit ma xam ni keneen it mu xam ni pax yooyee de nun lañ ko waajal te amul sikk sàkk ci ni daan ko dugg si est ce yaa ngi seetlu sa mbokki jege ñaale moo xam sa baay moo xam sa yaay moo xam sa ndajaay moo xam koo xamoon la ñooñu la jege woon nga bokk ak ñoom dund te gënoo leen woon a féri ci dund ñu xëy benn bis rek nga dégg seen ab tàgge ñu di jël nañ leen ñooñu est ce que ba ñuy dem ci coobare leen demee tontu bi day nekk déedéet ñoom sax bu amoon lu leen demal da leen dem tontu bi mooy nekk déedéet est ce que ñoom da ngeen a gën a xër ci bëgg a toog tontu bi mooy nekk déedéet ñooñu dafay bokk lañ jege na lool yeey ci dund comme ni nga ci yeeyee tey waaye ñu ngi leen toxal nag tey minal buyuti ilal qubur léegi génn nañ leen biir kër yi ña nga leen jëme ca bax ya wa min altaalunaati almuzaxrafa ila hadihi alxujrati dayiqa saal yi nga xam ni salon yi nga xam ni dañ ko meublé woon taar taaral ko sawar lool ci entré faykat sawar lool ci ñàkk liggéey ba dafa féer lool tey génne nañ la ko mu yaatu lool ñu jëmale ci ak kër goo xam ni mooy kër gu wóor ga mooy kër gu xat ga mooy kër gu sori ga mooy kër gu wétti wa inna daar al axira la hiya al xayawaanu law kaanu yaalamuun bu ñuy wax dund fegi dund gën a def àllaaxira tàmbalee ca barsax moo tax waaye du dund àddina bu gàtt gi nga xam ne tuuti nga fii def ak dal ci jóge ndax yaa ngi xalaat ni ñooñu day xañ na leen lekk fi ne fan nekk lépp lu fa xañ nañ naan fi nga fa nekk naanu nga fa xañ nañ leen jaxasoog seeni mbor waaye bala kay dañuy jaxasoog suuf xañ nañ leen wéttaliku waaye tey dañuy wéer ay dëkkandoo lañ yoo xam ne seen buntu kër dafa taqaloo waaye kenn du jug seet sa morom su kaanu laxdin aw jiiraanu qurbin laa yatadaawawuun dëkkandoo yoo xam ne seeni buntu kër moo a jege yoo buntu kër yoo gis ñuy jege yoo ci kaw suuf waaye ni jege yoo jege yoo ku sàkk wàll sa morom du jug ku yóoxu sa morom du yërlu ba xam lu xew kenn du jug di ziyaar ci sa mbokk lu ko waaye daal daal loolu yaa koy wéetoo waaye loo jege yoo jege yoo ak nit talu la ndax kooku boppam la tal foofee ni amoon ak ñi ñàkk tasaabu jamian fi tilkumul xufar ñoom ñëpp tey ñoo bokk yam ci bax yi amut bii mooy bàmmeelu ko amoon alal déet loolu taar taar lay nit ñi def ca kaw rek waaye wallahi bu ñu xamoon loolu sax duñ ko def yëpp ci yonent bi da koo tere sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa xaraamal tabax bàmmeel waxuma laa di ko denc waxuma laa di ko karbe waaye waxuma la tere ko yonent bi tere waaye bu ñu xamoon ni taw bii wàcc di dal ci kaw armeel bi di dugg ca biir suuf sa di fekki néew ma bu ñu xamoon ni yërmande la ci aji tëdd kooka duñ ko xañ taw bi bay baare digganteem ak asamaan si kon ñooñee tëdd say mbokk la jege nan def ba jóge fi na suñu borom def ba jóge fi ba ñoo ne jóge noonu la suñu borom def ba nga jóge moo tax waxkatu arab bu bu bu yeewu mu ni ataytul qubura fa naadaytuha man de damaa doxantu ba ci armée ma yóbbu ba sama baa tës ma woote ni ayna al muazzamu wal muhtaqar li ma bëgg ngeen tontu ma ci mooy ana kan mooy ki fi amoon alal ci amoon ak ci xeeru ñoom laa bëgg ngeen wan ma seeni armée mu ni dégguma kenn tontu mu ne ana kan mooy ki nga xam ne dafa lool amoon doole ak ki nga xam ne dafa ñàkkoon doole muy dégguma kenn mu teg ci ne tafaanu jamian fama muxbir mu ne ñoom ñëpp dajale yooyu bu may waxal seey nañ bu yàgg wa maatu jamian wa maata al xabar ñoom ñëpp faatu nañ nekk da bañ faatoo ci la seeni xabaar jeex mu ni fa yaa taali li an unaasin madaw yow mi may laaj ñooñee ci lu ñekk mu ni ama laka fi ma mada muctabar xanaa sa mbokk yi dafa faatu nekkuñu ak waar ngir nga góorgóorlu préparé balaa nga leen di seeti mbokk yi bàmmeel day kër la loo xam ne kër gu mat di la gu mat di xalaatal déglul xarit bi haani di ko nettali di surgab Usmaan ibni Affan radiallahu anhu mu ne Usmaan day saa mu taana toog ba benn mu romb ay armeel nee na su rombee armée yi dafay jooy ba jonkan taataa sax fa jonkan fa lay daanoo xëm benn bis saxaaba yi daal di ko laaj ni ko wax naan ñun dañoo gis ci yow mbir mu nu jaaxal loolu kenn ni sawara ak ni mu mettee ak sëkku ya fa nekk ni mu ragloo nga xam ni borom xam-xam bi sax léeg-léeg day ragale nit yi lam ca jàng bu mu koy wax yow daanaka daal dafay mel ni waxul lu bari lu am solo bu ñuy nettali àjjana dafay nekk waxul lu am solo ci waaye bu ñu waxee ba tudd bàmmeel bala nga romb ko rek tàqali koo nga mu ni ajal ahon kay ndax de damaa déggoon yonent yàlla bi na al axira bàmmeel day mooy kër gu njëkk ci kër àllaaxira ji képp ku yàlla baaxe ba nga baaxle fa kooka ne ay affaire am baax na ba faaw ku yàlla seetaan ba nga bonle fa say affaire bon na ba faw beneen riwaaya bi neen ci yàlla bi nee na ma raaytu min daran illa wal qabru afdahu minhu musumaa jég wala ma xam wala ma gis lu nuy nekk lu amul tiis lu dul loolee bàmmeel moo ko gën a amul tiis xadis bi imam ahmad solo la ko si musnad imaamu tirmisi sunan xadis la bu wér xadis ab jaabir ibni abdillah imam ahmad di ko nettali ci musnad ba léegi mu ne yonent yàlla bi nee na alayhi salaam laa tamannaw al mawt lu mu metti metti lu feebar metti metti lu ñàkk ñàkk di kël la loo nekk ay problème bul def comme ni ko nit ñi defee lii dee tax ko kën man sax yàlla naa dee pikir leen ma ma dee rey leen ma ma dee bu ñu bul wax loolu bu fa inna hawla al matlay azim ndax la ngeen nar a fekk daa rëy ba jéggi dayoo kon kay lu ma ci am teetal mi lañ fexe waaye yàlla naa dee moom solution ndax la nga dara xiit boo yeggee di nga xam ne moo gën a rëy li nga doon daw mbokk yi déglul suy wax nga xam ne dafa neex ak nit ci li te pees teel la ci njariñ ci bépp xol boo xam ne yàlla loo roos na ca leeri ngëm imaam ju mag jooje nga xam ne ma nga juddoo ci biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci gisu ko mu imaam Xasan al Basri benn bis dafa dégg ni am na mbokk mu wàññeeku ku faatu mu sol mbubbam dem toog ca néew biñ demee ba teg ko ci kóosu bàmmeel bi di ko waaj a suul imam Xasan al Basri ñëw ba tolloog boppam ba mu ni inna amran hada axir mbir moo xam ne yàgg yàgg fii lay mujjee la xaqiqun an yuzhada awalu kon dañ daal gën bu ko kenn soxla mbir moo xam ne yàgg yàgg yàgg yàgg fii la nar a mujj teg la ci kóosu bàmmeel kon dafa am tàmbalee jël sa bébé te am mu ne wa inna amran hada awalu la xaqiqun an yuxaafa axiru mbir moo xam ni lii moo nekk njàlbeenam kon dafa mën a mujj jar naa tiit allahu akbar jooju wax mooy lan mbir moo xam ni yàgg yàgg ko lii mujj mooy ñu indi ba ci kóos bàmmeel wax lu mu xóos nar la taakuul su dee lu neex neex fii la nar a mujj mu ni njàlbeen ba jër taam kon judd sax jënd ko woon beneen kàddu gi mu ni su fekkee ni mbir moo xam ni lii moo nar a ñu ngi dem àllaaxira amul leen a nekk tàmbali lu dul teg la ci kóosu bàmmeel wax ko ba mu xóot suul la ko ñu mentañ su dee lii mooy njàlbeen mu ne kon day xam naa ni li mu virtuur la ca naan topp dana metti lool te wallahi loolu mbokk yi xikmatun baarika wax ju la yoo xam ne bépp julit bépp aji gëm yàlla war na ciy xalaat te bu cay xalaat nag muy natt boppam saa booroon bee bàmmeel yi fanaa di wooteel tuddal tur yi ñi nga xamoon in kunta munaadiyan xoolal ila taqaaru bi manazilihim jiraanu qurbin la yatazawaruun xoolal seen kër yi ni mu jegee bàmmeel ak morom la saa saa ñuy gas ba mu yàgg sax nekkete kër gi ñuy waa ji nekkete kër jàmbur la woon ñu suulaat gis nga de bu doon ci activité bi xëccoo waaye foofu kenn du xëccoo lu tax kenn du xëccoo mooy foofu mooy palaas yi dëkk ya foofu mooy kër yi foofu mooy kër goo xam ne boo ko amee jërul ngeen di jël ci kayit ya déedéet jërul ngay dem mairie ngeen di jël ci kayit ya déedéet foofu jërul ngay jël ci kayit ya foofu jërul ngi tey ku coow sa coow wala ngi tey xeer ndax ku nekk da nga ca am doy na la sëkk te kenn soxlawul bésu kenn foofay àllaaxira xoolal ba fa nga woo leen nga laaj waaye su xamoon ci dëkk bi mu bari woon alal lool laaj ko ne ko eh jiw yow mi ci biir bàmmeel maa baqiya min binaak dama lay laaj li amoon ci alal li ci wala lu ci def ka nga yaakaar ni dafa dund wala kaana ba faatu ñàkk koon laaj ko ni eh, yow mi ci biir bàmmeel sa ñàkk nga fi ne lu ci def ndax yaa ngi continuer ñàkk wala def nga fay am at lëpp laajal ñi nekk biir bàmmeel ni leen ana seen làmmoñ yi ngeen doon waxee amaana sax mu nekk làmmiñ moo xam dañ sa daan mooy yàlla ana seen yi nga xam ni mooy yàlla yi ci ngeen ko doon xoole ana seen der yi nga xam ni da ngeen ko doon nas nasal ak ko màgg màggal ak di ko megg meggal fonk ko lool te mu nekk loo xam ni sax yi ñoo ko doon mujje ana seen yaram yu nooy yi ngeen doon defar ak a baaxal ngir bëgg mu funki wala mu rëy loolu lu mu leen jëriñ tey maada sanaat diidaanu biha maa ngi laaj nan ngeen defar tax yi wala nudati bee suuf maa ngi leen di laaj nan ngeen defar nudati bee suuf mu ne ukilatil alsum sax yaay tontu ne ah, li fi am de mooy làmmañe moom jot nañ koo lekk waaw firatil wujuh kanam yi de na lépp ndax sëlam ko lépp a suuf la fa nekkoon sa dawal dem na la ma newoon ci pax pax suuf suulu na ca wa muhiyatil mahasin duppati nañ deru kanam ba nga xam ni moo doon nes na teg taar ba wa kusiratil fiqaar moo ca yeeg yax yi articulation yi yëpp benn bu ci nekk feqalikoon ak morom ma wa baaratil aada cër yi benn bu ci nekk nee na yàlla bàyyi morom ma wa musiqatil aslaa cër yi yëpp benn bu nekk def na ay dogat dogat bayna xijaabuhum wa xibaabuhum ana ki la doon garde bi ngay dund yow bi ñu lay def nii ki la doon garde anamu bi sax yi yegg si anamu bi ma nga daan sol ana daal yi nga daan sol ana xeeti jumtukaay yi matériel addina yi nga amoon nga xam ni bu lor daan dikk nga fegal ko sa bopp yooyu xanaa dalaa réer tey kay ndax andaale woo ko ayna xadamuhum wa abiduhum sa surga yeeg sa mbindaan yi ana ñu xanaa ñoom fekkewul bi ñu lay def li wa jam'uhum wa kunuzuhu compte banque yeeg salaire yi chèque yeeg conteneur yi alal jeeg magasin yi yooyu ñoom xanaa lan la jëriñ ci àddina la yëpp alaytum fi manazil al xalawaat xanaa du ñii ngay waxal tey du ñoom ñoo nekk ci ay kër yu wéer alaysa al-laylu wan nahaaru sawa xanaa du ñoom guddeeg bëccëg ñoo yem ci ñoom yow yi muy dund yaa ngi nekk di tal ñu ngi ci guddi ñu ngi ci bëccëg waaye ñoom taluñu guddeeg bëccëg ndax lépp a yem te ñoom lépp a lëndëm ñoom amul guddi amul bëccëg yow yaa tal bëccëg ak guddi yow mi dund de ñu ngi ci lëndëm boo xam ne tiis ba ak métti ba yàlla rek a ko xam xad xiila baynahum wa bayna ma yashtahuun li liñ gënoon a bëgg muy jongo bay liñ gënoon a bëgg muy taaki kaw ya liñ gënoon a bëgg muy daamar ya liñ gënoon a bëgg muy alal ya yàlla mu ne xad xiila baynahum wa bayna ma yashtahuun kama faala bi asyaihim min qabl yàlla dox na digganteem ak lan digganteeg lan gën a bëgg comme ni yàlla defoon ci ña nga xamante ni ñoo jiitu woon mbokk yi imam bu mag di ñuy wax alwahb ibn alward nee na benn waaye dafa ñëwal Omar ibn Abdul Aziz xam ngeen ne Omar ku bëri woon alal la lool Omar ibn Abdul Aziz waxuma la moom waaye takkaay or soxna soxnaam moom Fatima soxna yu Omar ibn Abdul Aziz keroog bi muy li mu àndaale ci ay takkaayi or buñ ko jaayee dëkk bi ñu dëkk mën na ko jënd wallahi la soxnaam waxuma la Omar soxna Omar ibn Abdul Aziz li mu dencoon ci ay or moom Fatima bàyyam xalifa la maam maam bàyyam mës naa jiite jullit ñi maamam mës naa jiite jullit ñi ñaari frère am jiite jullit ñi jëkkëram tey nekk amirul muminin kii lu mu war a kon jëkkër ji lu mu war a am bu dee jabar ji ku bari woon alal waaye garab bañ ko paree mu yëg ni lii kat amaana la ci ëllëg yàlla dina ma ci xisaab da ci nekk di ci xalaat di ci xalaat man ba dajee sama borom mu ne ma lu tax defaloo tali lu may wax bu ma dajee sama borom mu ne ma nit ñi doon xiif nag lu may wax bu ma dajee sama borom mu ne ma ndax jubbanti woon nga xeet lu may wax di xalaat te loolu ba jeex tàkk bët yi dugg lool amatu yaram ndax telu ko waaye ku gëj a gis daal mu ni ko ah waaw yow subhanallah teel nañ na yàlla lu xew mu mel ni waaye dafa yéemu ci melokaan bi ñu ko gis mu ni ko yow jeex nga kat jeex nga kat comme ni ko nit ñi waxee mbokk yi jeex nga kat wala da ngaa tuuti wala da ngaa nangam wala ndax da ngaa feebar yi xeeti wax la ko mën ci wax tontu baa ngi xoolal bañ ko waxee Omar ibn Abdul Aziz li mu tontu mu ni yow day gisoo dara gisagoo dara. ah lii nga gis sama bëti dugg yi ak sama jaaxle gii moom nga gis sama kawar gi cuqaaru gii xanaa yow bu fekkoon dañ ma dugal bàmmeel ba ma am fa ñetti fan wa xarajat al mu ni ñaari bëti daal di buqeeku fasaalat anil xaddayni per bët bi tuuru daanu ci kaw lex bi wa taxallatat safataan buum buumu silit gi ngay nga xam ne moo ne fas teetuñu suuf fi nga xam ne bu daggoon tey doomu aadama dootul mën a téyew tuñu dootul waxati lu leer làmmiñ bi dafay dotal mu ni buum gën a cëpp dagg wan fataxatil fam su ko defee gémmiñ bi tijjeeku dootul mën a tëjoot wa nata al batnu nee biir bi daal di kum ki toj ndax dafa nëb fa ala sadra mu daal di tuur li nekkoon ci biiram ci ay butit ba tuur ko ci kaw dënd bi ndax waajaa ngi tëdd nee na mboolem ku bën ba nekkoon rek sax yaag jaar lépp di fa jaar di jàng ne soo ma gisoon bi xam ndax damaa jeex wala jeexuma moo tax mbokk yi xeeti wax yooyu nga xam doomu aadama dañ koy wax doomu aadama di fexe dundal aw yaramam ngir mu wallahi dundal sa ruux ngir mu naayi yaram bi daanaka rek sax yi jiit yaag jànklaar yaag dund si biir kaw biir suuf ñoom nga rek nga imam ji wax Yazid ar-Riqashi dafa jaadu mbokk yi kenn ku nekk dafa aajo koy waar di ko ñuqi di ko fàttali yàlla subhanahu wa taala gis nga salafu saalih dafa bokkoon ci seen méthode yi ñu daan dundee mooy ñoom dañ daan waar seen bopp dëgg la doomu aadama mën ta wax ak boo fàttali nit ñi waxal ak sa bopp waaye ñoom dafa dañoo romboon di wax ak nit ñi waaye dañ doon wéet di wax ak seen dem ba yëg boo xol ci xolal dafay jël ab baaraam joxal dënnam te naan way xaq yaa yëg di jooy te naan toskare ñeel na yow yëg yi mu ne si boo dee kan moo lay jullee nag ku lay julli di la yóbbul bàmmeel xanaa kenn way xaq yaa yëg yi toskare ñeel na yow yëg yi doo góorgóorlu nga woor li nga mën a woor balaa laa dee dikkal man saa yor suuma an kama adal moom koo yaakaar ni boo dee moo lay wooral xanaa kenn way xaq yaa yëg yi toskare ñeel na yow yëg yi doo góorgóorlu nga fexe yàlla gërëm la balaa ngay dee fi ne boo dee kan moo fi nekk nag day fexe yàlla gërëm la xanaa kenn su noppee mu ne yaa ayyuhan naas yéen ala tabkuun xanaa du ngeen jooy jooy xol wa tadoxuuna ala anfusikum soo deewoon tey dina say mbokk di def di la jooyal mu ne yow jooy ko sa bopp baaqi xayaatikum des sa dund gi lépp defal loolu lu tax mu ne yow yow yëg nga ci cause bi nga taxaw est-ce que fi nga taxaw ni mu danger yëg nga ko manil maw mawaidu koo xam ne rendez ba mu am bu fa yeggee dee ko fa taxaw di xaar wala xabrul baytu bu ñee ko duggal kër gaa ngi bu duggee ci biir bàmmeel lay fekk mooy kër wasa soraasu suuf si ak ni mu dànkale ko ni mu tàngee moo la nekk sax garam ba ngay sut wat duudu aniitu ay tax yeen ñoo la nekk sa witta wa huma dalika yantadiru al fada al akbar ànd ak lii lépp nag li muy metti yaa ngi xaar tiis bu gën a màgg yëpp muy àllaaxira mu ne kayfa yakunu xaalu kii dama xaw ma ay mbiram mu war a mel moo Abdul Haq da wax ni saa boo duggee biir bàmmeel jàppal ni yow yaa faat yaa ngi bokk ci groupe bu yi te xam nga ni kat néew yi fi ne am na luñ aajoo kon gëmal ni loolu ñu aajoo yow moom nga aajoo nag am nga sens ndax mën ngaa gaaw pression léegi fàttaliku ni seen séeréer def naa ay dogat dogat fàttaliku ni ñoom fi ne wéet nañ tey te dañoo ragaloon nit lool fàttaliku ni tey bëggoo sax toog ca seen fekk waxuma laa ki wax ñoom ñu lay tontu nee na fàttalikul nag fipp ku mag ka génn ku mag ka nga xam ne saa buñ ko génnee ña nga jëm bàmmeel mooy fàttalikul loolu ak génn gi nga xam ne ñu dañ koy génn ci seen bàmmeel jëm te suñu borom topp wootekat bi amul jàll waxkat ba naan yaa ayyuhal mutasammi yow mi nga xam ne saw yaram rek ngay nekk dinaa yéene ko dundal xul lii li man tasamman léegi dama lay laaj yow yaram bi fi ne kooku la juufal sàmmante nag sa kanil bila xanaa yëgoo ne raf ak sax yi moom ngay juufalal yaram xobatante yaa mustaqbil yaa ngi suural yaram ba mu suur te yëgoo li ngay def lu wa atarte kulla isaati fu mu gën a ñaawee sa diggante sa borom def nga ko wa zananta annaka muhsin ba léegi tuuboo ndax jàpp nga lu baax ngay def maa ngi ara raayuka tatma'in man dama xamul lu la dal ba yow foo jaar sama xel mi ngi dal ilal xayaati ci dund gi watar kante yaa ngi gën a nuur ci dund mu ne yaay sàkki nal xujuraatina yow mi nga xam ne yaa nar a dëkk sa bàmmeel ya xamal ni maa laka gayra qabrika maskan doo fa am lu dul sa kër muy bàmmeel ak yow ma anta mukaathir tey yaa ngi ëppalante hum faafaru tazayyanu yaani kuukare wakataataaro wa gadan tasiru ila alquburi muhannatun wa mukaffanun ëllëg ci biir li nga fi amoon lépp nga fi bàyyi jëm bàmmeel ni cuuraay la sàng axbit li rabbika tawbatan deltul gannaaw dëppal dëpp jot na dëppal nga tuub fa sabiluha laka mumkinun jumtukaay tuub fi ne yàlla boobu comme ni nga la ko jox ba léegi wasrif hawaaka li xawfihi dàqal sa bànneex ba mu génn sa kër waaye na nga ko dàqee tiit bu ngay tiit ci yàlla min ma tusiru wa toori moo xam li ngay yëg li ngay def mu nëbbu ak li ngay def mu feeñ mbokk yi di fàttali ku bàmmeel ak di ko xalaat a di ko tiital loolu nga xam ne borom xam-xam yu mag yi yàgg nañu jooyoo ak li ñu xam-xam yàlla subhanahu wa taala Rabia ibn Xusay dafa doon def bu mu saana yëpp wow wow xol moom dafa demoon ba ci gannaaw kër mu gas fa am pax pax mu waaye nag ñi baax moo gën a yaatu bàmmeel tuuti moom dana ci mën a dugal boppam génnaat nee na su ma demee ba àddina naa fàtt alal yeeg doom yeeg jumtukaay yeeg matériel yi àddina yi nar naa fàtt mu yëg boobu xol mu wóor ma ni fi ne maa ngi bëgg a jàdd yoon muy damay wut ak déng wala am ardoise day dem ba ci biir baax mu dugal boppam sa biir tëdd daal di jël déng bi muur ko ci kaw xam nga loolu lu xat lay doon loolu lu tàng lay doon loolu lu lëm lay doon nee na su ko defee nag su ma ko duggee may wax sama bopp ma ne ko ah yow Rabia ibn Xusay léegi nag yaa ngi nii tey yeega gis nga dégg gaa ngi nii tiim la yaa ngi nii ci biir bàmmeel léegi lu fi tës amul lenn sa xel dem lu dul aaya ja ci suratul mu'minuun nga naan rabbi irji'uun yàlla dimbali ma gaaw ma delluwaat ci àddina la am ni amalu saalihan fii ma tamit di ma defaat tuuti yow xam nga ni mënta nekk ndax yaa ngi nii jéeg fekk boppam lay wax ngeen su waxee lu ko ñàkk sooy wet nga xam ngeen biir gi dafay tàng dafay daal di génn su génnee laaw yi fekk nga yóbbu dugg biir néeg mu jàkkaarloo ah, nga yow rajo am nga temps du yaa ngi duggoon nga bàmmeel yaa ngi génnal yow xam nga ne bu fekkoon si foofu nga dugg noonu nga continuer say dox kare ñeel waa bañ a la góorgóorlu waa kër yëpp nee nañ fan yéen defee lool dana toog lu mat weer saa boo ko xoolee da ngay xam ne kii am jiit daa nekk ci kon lii genn doomu aadama léeg-léeg mu dañ bàmmeel xool nga fàttaliku mbokk yow fa nekkaloon ñooñu lañ fa nekk ñooñu lañ fa nekk bàmmeel na mu mel kii soo fa nekk la fa nekk xéewal la fa nekk mbugal amaana bi isnillah loolu mooy nekk suñu xutba yi àdduma nu ngi ñaan suñu borom mu boole ñu musal ci mbugalum bàmmeel yàlla yàlla subhanahu wa taala xiirtal ñu ci ak topp yàlla yàlla yàlla may ñu aljanna ak la fa nekk ci ay xéewal yàlla yàlla musal ñu ci sawara ak mbugal yal na yàlla musal ci sañ ca mbàmmeel rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa salli allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in